màggalu Touba dafa bëri ay dimension bokk na ci dimension sociale muy dimbalante bi lay fànn soxna Mouminatou Kébé du ko desal ginnaaw benn yoon ndax at mu jot mu gën ko yokk ci màggalu Touba édition 2023 bi ay nag yu bëree bëri la lewetal jël la ca gën ci ndawal séddale ko ci paan yi mu toll ci juróom-ñaar fukki paan yoo xam ne bu ci ne ànd naag saakoob ceeb soxna Mouminatou Kébé fas ko yéene séddale dëkkandoom yi ni mu ko baaxoo amalee at mu nekk jëf ji nag da ko yitteel moo tax saa su ne bala ñoo séddale paan yi moo koy saytul boppam. moo tax mu génne lu toll noonu ci ndawal génn ay tonni ceeb boole ko ak ndawal googu jox leen ko te xamu leen loolu nag bokkut ak ñi nga xamante ni bii tey jii dañuy ñëw fii ndax bërki démb ba léegi saa fu xëyee ab liste lay def ñu nekk ci buntu kër bi mu ni xool leen ña fa nekk ñu def ab liste mu yëkkatee enveloppe liste boobu kenn ku nekk mu yëkkati jox la ko. bëggul sax ku ko lim ndax dafay wax ni ndimbal booy dimbali nit da nga koy dimbalee loo xamante ni bu demee dina ko jariñ léeg-léeg da nga koy yërëm sax ci li muy jël di ko joxe waaye boo ko waxee mun la fas yéene maa jox nit loo xam ne bu demee du ci jariñ waaye day dimbali néew doole moo tax ñëpp man a bàyyi seen nit yi dikk ànd ak moom taxawale ko ci dimbali gi muy dimbali néew ji doole yi ngir maanaam ñu am lu ñu màggale am lu ñu santale Serigne Touba boromam ci bisam bu tedd bi kon soxna si yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér ak njabootam yal na ko suñu borom gën a doolee taxaw mu gën koo man dugg nañu ci koñ bi yépp kër gu ne ñu dugal fa paanum ndawal ak saako ceeb jëf ji nag rëy ci ñoom lool ñu santaat bu baax a baax soxna Mominatou Kébé ndax mosu leen fàtte ci dara. ñu ngi koy ñaan nag yàlla bu déwénee yàlla mel ne ën ñu gi yokk tabaarke loolu lañ koy ñaanal fu mu toll borom kër gi tamit loolu la koy ñaanal ba wuñu fàtte wuñu loolu rek lañ ci am suñ kàddu yi ñuy wax borom kër gu góor gi moom daa mënu wax moo tax. dañ ciy sànni suñu kàddu rek mu ñoox ñu ngi sant yàlla bu baax a baax man ba ma fi dalee màggal ba tey ma nekk ci waañ wi mu ngi koy def ba tey mu su koo tëb suñ gone yi sax bu ñu añee nii foofu lañ jëm ci këram di fa eh, dem fa mu jox leen ci xéewal yi jox leen ci yëpp moom daa fàttewuñu ci dara macha allah ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mu ko koy ñaanal bu baax a baax ci barke sëñ Touba Mbacke lu mun ren yàlla na ko mun déwén ñu ko koy ñaanal. ah soxna mooy wax dëgg amul ñu ko fay. lii moom yàgg nañu ko defal sax màggal mu indil ñu ko bu dul màggal sax dañu koy defal ndax yi nga xam ne ci feebar bi fii lañ indi otaam di joxe ceeb waa koñ bi ñëpp mu jox leen ku ne ñaari saako ceeb ak xaalis bu bari bu bëgg a dee te suñu xale yi bu ñëwee tamit dañuy daw àkk ko mu taxaw ak otoom génne xaalis di ko may wax dëgg yàlla fu mu heure bu fi ñëwee ray nagam yi seddale lii moom wax dëgg yàlla tey jiituwu ci da koy def màggal di ko def dul màggal

billaay waa xale yaa ngi nii am na boo xam ne day bari may ñu séddoo ñun xale ñun xale yi jàkkee njuga sant nañ ko gërëm nañ ko barke Seexul Xadim amuñu fayam di ñaan yàlla yàlla fayal ñu ko liggéey amuñu fayam kontaan nañu torop barke Serigne Salim Mbacke mun ma wax sama xol bi moo li fees moo tax ndax kontaan si ma ba mun ma sax wax barke alxuraan mais maa ngi koy ñaanal jàmm ju bëri daal di ko ñaanal lépp loo xam ne lépp mu ngi ko bëgg yàlla na ko yàlla defar daraje Serigne Saliou day wër koñ bi di ko joxe dañu nag mooy ñun moo sedd kenn wax dëgg yàlla dañuy sedd ñu di ko ñaanal xéewal yi mu joxe te sëñ Touba rek tax yal na ko yàlla ak yonente bi may fan gudd ànd ak wér ak xéewal yàlla bu ko kenn nettil dara ginnaawam yàlla bu ko séddee dara ginnaawam lii muy def daal sëñ Touba yal na ko yàlla ak yonente bi ak Serigne Touba Mbacke ndax moom de ku bëgg Serigne Touba la ku bëgg Serigne Touba te bëgg na lool sëñ Saliou mbake bëgg na itam taalibe yeeg ñëpp daal la bëgg ñun daal wax dëgg yàlla moom daal ko dara bañ at mu jot rek nii la koy doxalee ñun dana jox ay ndawal dana jox ay ceeb te bu du looloo tim day toog ba mu baax def ko ci ay palaatam jox kenn ku ne mu dugal ko sa kër ah jox la xam nga loolu nag ci ak yéeg la bokk ñu di ko sant baax loolu nag di ko gërëm bi ci corona bi itam ba mu mii nii la def dafa indi ay ceebam ak ay xéwalam yëpp joxe ko ci corona bi ndax ku ne xam ne ne corona bi moom metti na woon da torop moom waaw ñu di ko sant nag di ko doolee ñaanal yal na ko fi yàlla yàggal lool te ko. at mu jot ñëpp ñëpp la koy jox amul xaj ak seen ñëpp la jox. Ah, man tax naa ci li ma wóor juróom-benn at man saa bopp leneen nag wóor ma li ma xam laa wax waaw waaw yàlla yàlla jàpp daal ci barke suñu waaw yokk wéral ko ci barke suñu Bamba waajur Jibril Gueye Darou Moussa. njàngum alxuraanul karim gi ñoo ngi koy wéyal ci kër gi diirub màggal gi dakkul benn yoon ànd kook bernde yi nga xam ne ci 17 safar bi bi ñu suba la màggal gi amal nañu ay ndékki yu mucc ayib boole kook añ yoo xamante ni yaatoo na lool kër gi ñëpp xéewlu بالخير والمفازين الحمد لله الذي يجازي من أحسن بالخير والمفازين